jooy eh ma ne man ngaa bàyyi jooy yi wala mënoo bàyyi jooy man kay maa la gën a am naqar waaye da ngay bàyyi jooy yi lan la bàyyi jooy yi bàyyi jooy yi. soxna Diama may bala mu romb ma. non dafa siib dama làmbaatu. man làmbaatu gaa ma gën a mitti làmbaatu ga waaye tey la koy ñiit billaay Diama xam na ne man sama jabar kenn du ko siif wallaay dana xam na loolu ah Diama Bakki Ndiak. te doxal na dem nañu kii faate kat bon yi ngeen doon seen kanam ne faga daga ndaxte ñii man la ñuy digtal wax ji man la seen moo tax ñu ne caama da doon sif lu caama di doyee kii caama dina am jeeg bu mel ni man triple jeeg di jéem a sif beneen jeeg ba ma yegg ba ma yegg ca caama caama caama oh. anamu anamu caama caama oh. yaa yaa yaay nëbbatu yaa yaay nëbbatu billaay kuy naan di nëbbu boo jengee di nga feeñ gënal ñàkk fayda ñàkk personnalité amoo fulla amoo fayda amoo dignité waaye nag yow la ñuy yàpp waaye man mi jéeg kenn ma yàpp benn jéeg mosuma yem yow yow yow yow lu ma la nar a wax sax xeeb ko lu ma la nar wax xam xeeb ko li tax minute bu jot nga naan génnal demal fi demal faa ndekka boobu amoo looy def lu topp Nabou Diagne Nabou Diagne mu tekkiwul dara nii yow looy doyee Nabou Diagne ah kii nga xamante ne tekkiwul dara démb ak tey melul nan ah jëkkëram ji di li ni soccantal ah nga leen di wut ñu wax wutal leen ay ay ay ay ay yàqatu de yow man man gis nga man sama tension baa ngi monte sax bàyyi man sama tension bàyyi man ko. xolal eh. joojo bul ma tudd. joojo bul ma tudd. ñàkk nga fayda. nabu góor day am personnalité sagal jabar. joojo mbaay. jooja mbaay yaa yaasin saw ak ñoom ñoom ñoom aasi saw ak ñoom ayda saw ñoom ñëpp yow la ñuy waxtaane joojo sif jabaru jàmb joojo yaa ñàkk jom da nga am tension te boo amee tension di nga ma rey da ngay wax dak di nga ma rey joojo calme leen neer xam calme leen neer xam li ngay wax amul sens li ngay wax baaxul. sama baat laa soxla la ma euh, sama baat laa soxla ko ñaan. yow lan ngay doyee Nabou Diagne lan ngay doyee Nabou Diagne loo war a mën a doyee Nabou Diagne rek laa bëgg xam. looy doyee Nabou Diagne. doyuma ko dara. kon lu tax nga nga koy siif. dara jëy jëy laa ngi faal Nabou Diagne doyuma ko dara. kon lan gàtt lan moo tax nga koy siif. ba ma dégloo dégg ba ma dégloo dégg waxal. d'accord bu la balal eh du ma wax nga may tontu. waaw dama lay wax dama ne du ma du ma wax nga may tontu du ma wax nga may tontu. da nga am tension sama yoon newu ci. xam xam ku ñënuk sa jëkkër yàq sa sama yoon. joojo sama yoon. da nga am wayu rafet ci jëkkër ju bon ju ñàkk fayda nag di raasaatu. dafa jag xam joojo. da nga am wayu rafet ci réew mi. waxal te bu ma laal. da nga fay am dignité. su ma amee dignité te sama jëkkër ñàkk fayda nag. da nga fay am personnalité. topp di raasaatoo kat di di di nabb nabb xale yeeg ka def yëpp te bu ñëwee ci kër gi di jaay doom ba ñaaw du dara. joojo may ma jàmm mën naa laa wax dara jëy sëñ Jili Faal joojo. yaa ngi gàddu ak sëñ de. man du ma kuréel de yaa ngi gàddu ak sëñ man du ma kuréel de joojo boo xamul ba léegi da toog xamal sama baat laa soxla déedéet kam yow mi may jëndee jeeg comme man. defal jag sama baat laa soxla defal jag joojo. waxuma dara ñàkk fay na. joojo. ci dama la seexlu sax léegi dama la seexlu. joojo dama la seexlu. waaw boo ma dégluwul lan ngay xamee li ma bëgg a wax. xam. jooju ma xol bi nga jël. boo ma xamatul ba léegi ngi sama xol bi nga jeexal tàkk tàkk tàkk. bul jooy. ne pleure pas. jooju boo ma dégloo da nga fi dëgg bi féete. ma romb na ma tonton ko naam ma ne dama bëggoon nga bal nga mbéj ko nga mbéj ko. ah déet man jullit laa joojo. je suis un musulman. moi aussi moi aussi. yaa ngi dégg mu ñëw fii dama caa ma ne ko naam mi ne ma dama bëggoon nga bal ma dama yoon ne wut ma ne ko baal naa la yàlla nu yàlla boole baal. mi ne ma caa ma ne ko naam mi ne ma sama borom kër ga. ndax ma ne ko ndax lan mi ne ma korog bu muy muur. Samba yow la waxaloon te effectivement. il a il a raison. doo dara boobu xëy na dafa jag dafa joojo ne pleure pas. <laughs> Eh, eh, eh. joojo ne pleure pas yaa ngi dégg. yan lu muy def mu ñëw ba fii ak ko la jojo boo continue jooy di nga am boloon maata du ko jar de di nga continue jooy ba am boloon maata du ko jar. sama yoon newut ci. xale bi day fenn bi ma koy accolade mu yokku ne dama koy siif. lan moo tax nga accolade lan nga seq moom. Ah, ah, ah. lan nga seq moom ba nga accolade. kaay wax la jojo man boo ma xamatul ba léegi dootoo ma xamati ñaataat na ma bokk ne doxuma dara ñàkk fayda Ah. billahi joojo sa tam taa joojo de man demoo de boo ma yemee woon doo ma def de taa joojo eh. sama dund gi man dee ko gën jatta dee nag da nga mën a dee waxal lu leer da a fen wax ak yow ba ma la na mën naa fen trop kay taa mën nga maa may ma wax rek tuuti rek li ma fekkee man waxal nga dimbali ma ngir yàlla waxal Maguette non non ce soit plus clair Thiam kañ laay wax allez-y daan joojo tey papa Thiam dañ koo tooñ. Ah, alhamdulilah rabbil alamin. moom mii ci boppam moom moom. may ma rek ma ñëw jënd jooy. joojo ne eh, eh, pleure eh, pas. daan joojo dama ma ñëw joojo ne pleure <coughs> papa Thiam mi ba ma dëkkee ci kër gi ba tey. mu yor ma ba ma màgg ba doy nii ba tey xaw ma ci moom ñàkk fayda. xaw ma ci moom matadi. Ah. xaw ma ci moom wayadi. Ah. xaw ma ci moom manqué. aka mat. voilà. gis nga nabu bii lu njiig njaag moom mooy njaag. wallaahi. daan jooja nabu seytaane na. benn nabu fimiste na. ñaar nabu rambaaj na. ñett nabu day jaxase àdduna. ñeent kër gu mu yéenu gunge la ñu dem pëlis. Hmm. jërëjëf yàlla. tey moom dañ koo tooñ tey tooñul. Ah. tey moom dañ koo tooñ. bu la doyul comme am jooju am jox am jox am naa ko. baal ma ni jaay caa. amati yoo xam rus naa ko ci yow. dama laa bëgg rek dama laa bëgg rek te billaahi. dama laa màggat yàgg nga toog ma wala la nag. jaruwaat jooju gën a ma la la je t'aime. bul waat bul waat man mii maa la demee ni jaay sama kanam je t'aime ba tey sama kanam. bul waat yàgg naa ma laa fenn waaye tey wax la dëgg. dëgg la dëgg la dama laa nopp rek je t'aime très fort comme le poisson aime le lot. ma gën a ñor et le ketchup de dans la l'eau de fond de Junko. ba nga nekk seen film la woon. joojo lii boo ko indee sama xel day dal xam nga lii lan la laay suba ba tey moom bàyyi woon ca xel bi <laughs> kii nu sagal. wallaay ma ni sagal kii boo xel day dal. wallaay ma ni sagal boo ko lekkee ndeysaan nee naan sawar sawar xam mu neex. Ah, ah. fiiri ndawal. Mm. bu la neexee defal sa soosu à côté. Mm. joojo rus di. yi nga yi Bamba Ndiaye nañ def.